et de contribuer de manière conséquente à l'intégration des peuples de notre terroir. De notre terroir. voilà nous avons remercié ngi qui di remercier ci initiative bi nga ci sawar parce que nous nañ muy am di am di amaat boo faire je termine mon je termine je, je, nous vous remercions pour cette initiative et de contribuer de manière évidente. je termine mon propos en demandant aux lutteurs et à leurs entraîneurs de faire preuve de sportivité et de fair play pour que la fête soit belle et que seule la lutte sorte vainqueur du tournoi. Très bien. Néna na terminé di wax bërekat yi ak encadreur ne fi yar ak lañ lañ fi ñaan képp ku fi ñew indaaleel yar boy ñibi aussi nga yóbbaale yar néna aussi nañ ko def ci fair play Bo ki nga xamné mom moko mérito mu gañe ko ci ay anam yu leer. Je remercie dal merci beaucoup que la fête continue et, que la fête soit très belle et que les meilleurs gagnent et que les meilleurs gagnent ñi nga xamni Merci et bonne sens. Avant de vous remercier, je vous remercie de 150 000. Avant de vous remercier, je vous remercie 150 000. Qui gagne gagné 100 000 Qui a gagné 100 000 francs, Qui a final 50 000 qui n'y gagné moi vaincu 50 000 francs CFA. Alors poids léger, 100 000. Alors le poids léger, c'est 100 000 francs. Qui a gagné Le gagnant aura 75 000 francs. Qui a gagné 40 Le perdant aura... 40 000 francs. Le gagnant aura 60 000, le perdant aura 40 000 francs. Lambourov. lamb roof avant yàlla def séeréer yi ñëw indil ñu lamb bu bees bi avant séeréer yi ñëw indil ñu lamb bu bees bii muy lewato muy lamb bu xarañ muy lamb bu xarañ muy lu CDG nangu lu CNG nangu mooy lu CNG nangu dafa amoon xeetu lamb ju fi nekk dafa am xeetu lamb bu fi nekkoon mooy roof mooy roof ñu naan ko jàggu mu jàgguwaa tiida mu ne jàgguwaa tiida jàpp ba mu dëgër comme festival ñaani la la moo tax ma jël initiative bi moo tax mu jël initiative bi dugal boobu ci biir dugal gis

instant maa ngi sant yàlla bu baax ndax ñoom dama bëgg ñaanal ma quoi te gis lamb loo xam ne dañ a a def ndax Koupantou sama dëkk la sama dëkku papa la lépp la man nag instant mënu mënu ma wax dara ndax fii dina ñaanal ñaanal boo xam ne instant yi damay nekk Dakar yaram day daw wante instant yi aw ma combat am xam ne vraiment bëgg ma ndax ñi samay lañ bëgg sa moo tax bëre wu maa ngi ñaan yàlla su ma amee combat nag vraiment ma am ci ndam bu baax a baax merci. boo gisee ñu dëkk ku ñu ko war a dutee kooku dafa am cër boo xam ne waa Koumpentoum duñ ko jox ay famille ay lépp am na lu ñu liggéey am na lu ñu liggéey Koumpentoum kooku ñu tuddee ko ay pare rek am na lu mu boo xam ne gars yi ko yaakaar ci loo xam ne dafa baax ndax waa Koupantoum vraiment boo buñ gisee boo tudd la affaire bi ni bagage rek am na lu ñu ci gis loo xam ma nga koy jox ko la lu baax la vraiment moom en kontaan na festival bi moom amul loo xam ne dafa xajam ñëpp a daan ñëpp a jaar loo xam ne internet la ñëpp a jaar loo xam ne saa yi kontaan na bu baax a dee parce que guddi ñëw Croix-Rouge oui Croix-Rouge au secours lépp lépp lépp Croix-Rouge député bu c'est urgence ñëw leen voilà Croix-Rouge Croix-Rouge urgence ñëw leen Croix-Rouge il y a un mbër qui a été ici actuellement nii il faut que gars yi xool ko. merci Croix-Rouge seen liggéey rafet na soo leen fi nekk yoon bu ñaaw jawrin baal gars yi. waaw nag mbër bi soo paree

Mbor il faut ngeen di décaler waaw waaw foofu laatu na foo décaler. donc docteur am un peu de problème de ñu ngi xool fii waaw ñu ngi koy bës mais pareeguñ après quelque chose alpha donc ba léegi gars yi ñu ngi ci nga xam ne dafa blessé mooy soigné pareeguñ Dicton émission aywa ci diggu géew bi nga daw deux minutes sans quoi on va émission soo ñëwul. émission soo ñëwul deux minutes. Amadou Le Daroufal, deuxième tirage. Et nous Deux minutes de préparation. Deux minutes. Deuxième tirage, Bougao, Bougao, voilà waaw mbër bi nga ñu mu ngi tudd xoox suuf xoox suuf taab jëm taab mbër bi mooy dem noonu si ambulance bi directement hôpital la oh. waa couloir ñu ko yóbbu je pense que

すごい。 na yéex na deux minutes amul benn réaction deux minutes pas de réaction lamb ji daa war a gaaw ay autorité ñoo toog ñoo bëgg a jibi ngeen xam ne tey fekk la nee na temps d'un décembre ñu gën a amit tey dañ koy séntu à partir de minuit vingt trois heures cinquante neuf attention victoire Dieu supporter kìa. asalaamaaleykum mbooloo mi ñi ngi leen di sant di leen gërëm yeen ñep ñi fi euh dama bëggoon tout d'abord au nom de la famille feu elage Hadj que je représente ici aujourd'hui à travers ma modeste personne remercier d'abord chaleureusement la population de Kopantoum dëgg neex yalla ñu ngi leen di gërëm di leen sante bu baaxa baax ci mobilisation bu rafet bi nga xamantene ni nii def ngeen ko fi tay wax dëgg neex yalla depuis ñetti fan yi yëpp mobilisation bi rafet na ànd ngeen ak ñun deuxième édition festival Pencum ñani ci vraiment dans la communion de cœur et dans le, le, le dans la communion de cœur

solennellement donc tous les organisateurs de cette deuxième édition du festival Pentium à commencer par euh, les, autorités administratives de la population de Coupentum, Monsieur le préfet du département, Monsieur l'adjoint au préfet et l'ensemble des chefs de service et aussi les autorités locales Monsieur le Président du Conseil départemental et Monsieur le maire de la commune, nous vous remercions pour cette belle initiative que vous avez prise à travers ces journées culturelles ndax penseur mi ngi mel ni rek wax dëgg neex yàlla garab goo xamante ne nii amul ay reen kon nag garab gu amul reen ana nan lay taxawee kon culture dafa am solo trop ci réew mu nekk loo xamante ne nii vision la boo xamante ne nii tey autorité suprême de ce pays xam nañ ko xam nañ ne que la culture est le premier levier de développement kon nag ñun aussi dañ cee war a bay seen waar ñu leen di féliciter vous conseil départemental pour continuer vraiment dans cette voie xam ne fi ngeen teg seen tànk non la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te développement réew fi fii rek la mën a àndee la borom réew bëgg ki ngeen tuddé réew timit ni la bëggona liggéeyé ñaani ñu and ci bokku xol bokk ndey bokk bay tay jii li woné na ko dafa neex lool nañ continuer noonu ma bëggoon tamit profiter aussi de cette occasion pour soli pour pour souhaiter souhaiter très bien à tout un chacun ñëpp ñu fi une très belle et bonne et heureuse année donc 2016 2017 Yalla nek, yalla nek atum natangé, wax deug neex yalla ci ñun ñi ñëpp atum aajo faju wergu yaram ak lepp jërëjëf ñong leen di gërëm di jërëjëf. service département yu nek fi ci yop ci département bi eh, di nuyu eh, xalé yu nga xamante euh fan yop ni ngi fi ci terrain bi defu ñu dara yore organisation bi ñi ngi leen di sant di leen remercier di remercier encore vraiment fils parrain ñi nga xamné né vraiment jappalé né ñu bu baax baax ci festival bi Euh, di leen ñaan ñaan yàlla ak at bu bees bi yàlla neen yàgg suñu kanam yàlla boole xool yi vraiment maa ngi remercier département bi yëpp jeunesse bi yëpp jigéen yi xale yi mag yi fàttewuma kenn imam curé ñëpp maa ngi leen di remercier di leen sant di vraiment si atum bu bees bi di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may xéwal fii si département bi et vraiment dit encore eh, ñaanal ñëpp daal suma limé rek joom vraiment suma limé joom té inshallah allah ñi ngi seen gannaaw eh, continuer suñu liggéey li duñ ko dog mok inshallah vraiment sama kaddu bëgguma mu gudd mais ma ngi remercier ñëpp ñëpp askan département Koupantoum yob responsable yob maire yob tous les responsables partis coalition Benno Bokk ñom ñop ma ngi leen di remercier di leen sant di ñaan yalla yal nañu yalla may ndam yal nañu yalla jappalé suñu département bi mo am natangé wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin kon bok président conseil départemental mo koy jox monsieur le préfet du département pour mu jëlal monsieur le ministre félicitations monsieur le président Félicitations, monsieur le préfet, représentant du ministre de la Culture. les chefs de service, monsieur les représentants des parrains, euh, monsieur les organisateurs, ak tous ñi nga deuxième édition de Peinture Nous Nous journée vraiment journée réussir population bi département 10 ethnies Djogé ci gox gox dase invité yi ñëw nañ djogé ci dëkk parrain bi na euh, du moins parrain bi ñëpp vraiment gis nañ leen ak seen kon liñu mëna def moy gërëm ñëpp gis nañ lepp organisation impact ñu gërëm donc ci touru préfet ñu ngi le président du conseil départemental ak tout son conseil tous ses conseils ndax ñoom vraiment ñoo taxaw ba initier lii tey ñu nek ci deuxième édition bi ñu ngi ñaan mu nek ay édition édition édition yenen yu ñew ñepp ñi nga xamni japp nañ ci aussi ñu ngi leen di remercier ñu ngi remercier sécurité bi parce que gis nañ ni journée yi bi mu amee ba légui sécurité bi ñi taxaw ñu ngi remercier la wa santé

joxe ay ballon vraiment ak ay médailles ba ci enveloppe financière vraiment président Merci. ñu remercier aussi ñoy presse parce que li bu lawé ñëpp presse particulièrement la radio Niani organe de presse fi gis Dakar Actu Soleil nañ vraiment di relais affaire

bëggoon na ñëw peut-être mi ngi ngi Kolda parce que dafa am chevauchement ndax fess fess nak bi mi di déroulé à Kolda mom moo tax mais bëggoon na ñëw ñëwul mais yónnee kon nak mom tam ñu ngi koy remercier vraiment dégg nañ aussi doléance yi dinañ ko porter fiñ ko la porter parce que lepp li ngeen wax mom moy bëgg nañ stade bëgg nañ stade bëgg nañ stade yaakaar naa ni président wax na leen ni moom débloqué woon na ay moyens pour def fii au moins clôture mais matul woon mais loolu dina ko mottali te kon dina taxaw pour jeunesse bi vraiment gis nañ ni kon moom aussi mi ngi bay waaram ci loolu. ñi remercie aussi tous les maires parce que ñoom ñëpp a ñëw c'est une première laa noonu lu am solo la parce que maires yi gis nañ leen ñoom ñëpp ñëw nañ ñu ngi remercier le maire de la commune parce que ñëw na ci colloque bi ñëw na ci cérémonie bi ñëpp gis nañ ko te vraiment def na partition c'est ce que bëgg defe naa wax nañ ko waxat ko au niveau du département de Koupentoum moy leader yi ñepp pour le développement de du département. kon nak Président. ñu koy ñaan yaakar les acteurs yi gis nañ niko nit ñi bëggé kon nak yaakar ne sam dinañ si seen waar te buñ ci seen waar def vraiment euh, festival bi inshallah buñ mu ëpp dayo ni mu ëppee ni te yalla mën nako vraiment di remercier ñëpp organisateurs yi faté fàttewuma kenn en tout cas ci tout préfet ñi ngi woné suñu contentement and ak yéen ci affaire ba egsi fi di remercier une fois de plus euh ki nga xamni mo moy moo festival bi muy le l'honorable député Omar Sy ak tout son ak tout son staff ñu andal àndal ñëpp ak ñëpp ñi japp ci yëf yi

kon nous, tamit vraiment ci tout euh, le proviseur du lycée et tout son staff nous ngi leen remercier ci lépp lu Nous taxaw remercier les chefs de service parce que ont ñëpp contribuer parce que jox yaakaar naa ay commission lañ defoon dañoo ànd ci commission yi taxaw ci jàpp si ba affaire bi remercier les autorités les deux sous-préfets et leurs adjoints tous les chefs de service les services régionaux les services départementaux ak ñi nga tous les élus ñëpp jàpp nañ

sallallahu alayhi wa ngi gërëm ñëpp surtout président conseil départemental di Omar Sy di gërëm conseil départemental bi yëpp dalee ko ci conseil ak bureau conseiller bi ak personnel bi nekk ci conseil départemental di nuyu maire yi nekk ci département bi di nuyu ñëpp ñëpp jiital ci nuyu bi préfet département ak sous préfet ak adjoint ñi leen di bëgg a xamal ne am na liggéey bu ñu fi defoon liggéey boobu lañ bëgg wax fii conseiller bi moo def initiation di def pencum ñaan daaw ñu defoon ko ci période bi mu pare ñu doon door wax nañ ne daaw lañ doon door ren ñu commencé waat def nañ ko ci même période am na yeneen jéego ñu ci def waaye jéegu yooyu nag dafa ñu commencé am ay partenaires partenaires yi commencé nañoo ñëw parce que xam nañ ne pencum ñaani am na solo bu baax moo tax dama daan wax ci samay émission pencum ñaani am na ay tànki kanam waaye amatul tànki ginnaaw donc am na ñaari parrain yu am solo ren mooy couverture maladie universelle ñëw nañ jàpp ci ak waa monument renaissance ñooñu jàpp nañ ci waaye yaakaar naa ne bu déwénee nañ xam ne partenaires yi dañuy dollu ñun nag waa département bi ñu xam ne ne ñun lañuy ñuy defaral parce que ku la sangal sab liir waaye yow it nga mën koo nàmpal comme que dañuy ñëw jàppale ñi rek ñun ñi ñuy jàppale nañ war nañu koy ji jàppale fekk ñi ci li ñuy jàppale donc waa monument nag am nañ jàppale bu ñu jàppale ci pour ñu jox masque yi nga xam masque la ñu wax prestation ak masque dafa wuute masque mooy gànguraan nga dindi sa jëmm ji ni meloon def beneen jëmm ñëw présenté wu loolu nag danaa leen bàyyi suñ consultant baa ngi nii ñoom envoyé nañ fi ay boromi xam-xam yoo xam ne loolu nañ ko xam parce que kii waroon a ñëw présider affaire bi ma ngi dafa dem Ziguinchor mu yónnee consultant bi ak yeneen technicien pour mu ñëw ñu saytu liggéey bi fii liggéey boobu nag saytu lañ ko démb ñoom woote nañ ne tey balaa ba set nañu am résultat yi jox nañ leen résultat yi mais du ma ci xool dinaa bàyyi suñ consultant bi mu wax leen résultat yi ni mu demee ak nañ ko jëlee ak jury bi ñan ak ñan la woon su paree mu dana ma delloo antenne bi dinaa leen wax ñu wax conseil départemental prix yi ñu jox ñooñu nga xam ne raw ñi xam ne nag mbir mi jongante la déwén day gën a neex ren ndàbbali la daaw am na lu am ren amutoon daaw waaye soobee yàlla suñ ci yàlla bàyyi ak kattanam ba déwén dina am lu am ren lii am déwén mooy ëpp lii am ren incha allah kon ma bàyyi suñ consultant bi Cheikh mu jox leen résultat yi ni mu tëddee ñëpp déglu ko parce que fukki enni Alo, fukki enni de doyum fukki enni enni bu ne dimbalé won nañ ko 150000 légui nak dañ lay jox nga joxe résultat final voilà ñuy nuyu ñep di population ñaani may wax ci turu monument de la renaissance africaine bi nek Dakar bokku ci ministère de la culture concours masque bi nga xamné ñom mom lañ soxla won ci festival bi parce que lolu mo leen mom moy ke askan bi ku ci nek ci mom li nga xamne mom moy culture am mu gën ko saxal mais ci bi masque yi demb buñ fi ñëwé jël nañ ben jury bo xamne ben journaliste bu joggé Tamba lañ jël mu tuddu pap Demba Sidibé ñu jël ben journaliste bu joggé Dakar ton tuddu mustapha ndjay bok Dakar Actu jël docteur kali nya nga xamne mom ci famille bi la bok ak man mi nga xam ne maa représenté monument de la renaissance ak madame Nabou Fall moom mu dëkk fii mu koo xam ne ñëpp xam nañ ko ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo joxe résultat yi résultat yi liñ ko togg mooy benn daa am ñoo xam ne prestation rek lañ def defuñu masque ñooñu bokkuñu ci concours bi donc ñooñu duñ leen jox prix li ñu def baax na amaana wante partenaire bi li nga xam ne loolu la laaj nekkul ñoom li ñu def am na ñeneen ñoo xam ne indi nañ masque def nañ prestation ñi indi masque def prestation ñooñu soose yi la bambara yi ak koña yi donc yeneen juróom-ñaari ethnie yi nga xam ne ñoom ñoo fi jaar ñooñu prestation rek la ñu def léegi ci biir loolu du ma wax li nga xam ne moom lañ joxe somme bi président commission culturelle moo koy wax mais ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu mooy 44 points sur 50 bambara 39 points sur 50 soose 36 points sur 50 li nga xam ne moom mooy prix yi bayal ma jox président commission bi mu wax prix bu ci nekk ñaata lañ joxe. kon premier prix bi mooy koñaaj yi am francs

pour Socé président commission culture moom moo Kognagny Ñoño un représentant est là président jeunesse c'est le président de la jeunesse donc Kognagny donc c'est Thiampou Mané ko enveloppe bu cent mille francs مدار فالق budino budino bendaza tasha minito budino agule agmarle mugao berelen berelen berelen berelen berelen berelen budino eh berle tiraj belegi ciro yare bu aga rasul bu

Vigeso Arcas, Milan Gualese. cappaandaw bu ndugg siin final

ah ñam renu ñam bi doy kenn xamul te sport a mel noonu te yow suba sa morom kon na ngeen góorgóorlu yeggale ko ci fair play bu ngeen ko tàmbalee ah muy mbégte ci ñi nga xamee ne ñoom ñoo ñu fii toog leen borom saak toog leen ñu ci ginnaaw mën a gis ma pour festival bi kan muy jël coalition attention arnas yéen ñoo ko tegaat ñu attention oh question arnas attention prise de contact par arnas mais demul oh sa combat bi nga ko préparé na dem ci géew bi